Coucou, hello méga, mais amis, c'est Rita Paradis Masai Balago Faramaren qui est là parmi nous. yéen a ngi ànd ak suñu people ci bi ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa su ne ah tey nag bu ngeen ma gisee rek ma daal di maye jàllaba bi rek mooy ah, dañ nekk ci mois de ramadan ñu war koo sellal rek ah ba koor gi daal di jàll ma commencé samay létt yu pareegul nii ah waaye nee naa suba lépp dina yemb rek daal di nice ah tey nag may ñaaxaat sama mbokk jullit yi nga xamante ne rek ah yenn saa yi rek seen xel daal di naqari ba ñu nekk ci biir kër yi ba ci yàgg rek ñu beddi leen ñu nekk ci mbedd bi ñu leen di woowee ay dof nee naa dof yi nañ leen boole ci biir nit ñi rek bu ko defee rek ah Sénégal day daal di jëm kanam may remercier ñooñu nga xamante ne ñooy def social di jàppale dof yi nekk ci mbedd bi di leen sang ak di leen solal yére ak di indiwaat seen xel rek ba ñu bokkaat ci nit ñi ndax nee naa la nit ku nekk rek am na lu yàlla def ci yow waaye nee naa genn wàllu nit yi nga xamante ne ñoom la seen xel wàññeeku rek dafa am ñoo xamante nii rek am na ay loxo yu bokk ca biir ndax dañu leen di wooye ñooñ nga xamante ne dañ leen di liggéey nee naa nag ñiy liggéey nit ñi nag dama yaakaar ne dañu gëmul yàlla waaye yow bu fekkoon ne gëm nga yàlla rek doo dem ci sëriñ naan ko defal ma diw mu dof wala defal ma ko mu tàggale kook sàggoom wala naaw talal ma ko rek mu génn seen kër rek bañati fa duggati nee naa boo awee ci géej gi di doxantu lu nekk ngay gis da ngay gis ay butéel yu ñu xaatim ba mu fees rek daal di cay sotti suuf rek def coo naka sudul noonu mu leer la ne rek lii doomu aadama lañ koy def rek nee naa man Sénégal dama xamul ban dëkk lañu nekk nii rek nit ñi nekk fi di liggéeyaate ak di def lu bon waaye nee naa sëriñ ba nga xamante ne dafa ñëw toog ci yow rek daa di lay ne defal ma diw mu dee wala mu dof yow nga am fitu def ko rek te yor sa njaboot ah boo xalaatoon ne dafa ñëw ci sa ci yow ne la defal ma sa doom mu nee naa la yaakaar naa ne doo ko def nañu bàyyiwaat suñu xel delloowaat suñu xel ci yàlla te xam ne fii munoo fee lekk lu dul sa wër wërsëg te bu la xaalis wala alal wala matériel wala dara jaralee rek ngay liggéey nit ndax ngir mu dee rek wala mu dof rek yaa ngi ci erreur ndax nee naa la kenn dund fi lu ëpp téeméeri at ku ci nekk looy dund lu mu bëri bëri bëri ci téeméeri at la yem te bu ko motee rek da ngay daal di dem wuy ji suñu borom boo yeggee nag yaa xam la nga koy wax ndax boo toogee ci sëriñ amoo dara loo koy wax lu dul naan kaan defal naaw talal ma diw